ndax dund jàmm amul prix kon ñu ngi ñaan yàlla lii nga xam ne lii xëy na delloo si na yenn xel yi xel mu dellu si boobu nag ñoom ñu sax ci loolu la ñaan yàlla ginnaaw bi ñuy ñaanalee ñetti bakkan yi fi jot a te vraiment loolu mënoon naa ñàkk kon li may wax dama koy jagleel d'abord la jeunesse la jeunesse, la jeunesse qui a refusé la violence et qui refusera toujours la violence. Ni Monsieur le ministre Amadouba, mon cher frère, a dit, c'est aussi notre frère et ami aussi, le ministre Cheikh Kanté, qui a ramené mon ñu am ñaar ñëpp ñu doon ay jàmbaaru président Macky Sall. defe naa ne mbooloo muy kilifa yi nga xam ne tey ñëw nañ bokk ak monsieur le ministre d'État Cheikh Kanté cette rencontre monsieur le ministre d'État gis nañu aussi les femmes frigoristes yi nga xam ne ñëw nañu tey ci rencontre bi ah lii nag li mu firnde. li mu firnde wax naa ko mooy ne le peuple Dakar a refusé la violence le peuple Dakar a dit non à la violence soxna yi defe naa ne yéen ëpp ci salle fa ñu jëm nag soreetul fi ñu jëm soreetul jigéen ñi dañuy ànd suñu doom yi jiitu ci kanam la jeunesse ne suñu kanam nag ndax seen yaay yi bu ñu jógee defe naa ne du ngeen des ginnaaw bu ko defee nag aussi borom kër yi soxna yi bu ñu jógee xale yi jiitu borom kër yi danañu fekk si ndax nag fa ñu jëm fa ñu jëm monsieur le ministre d'État Cheikh Kanté dafa am solo lool li ñu bëgg mooy joxaat une grande majorité au président Macky une majorité écrasante à l'Assemblée nationale bu ko defee mu mun a liggéey bu am solo bi nga xam ne def na ko ci réew mi tàmbale ko par Ndakaaru Njaay gi ñu ne nag Ndakaaru nag ay borom xel a fi ne ay liggéeykat a fi ne ay artiste a fi ne ay sportif a fi ne ñooñu xam nañ ni président di liggéey monsieur le ministre Amadou bu wax na ko sant TER bi rek buñ doon jël benn réalisation rek di ko yëkkati TER bi lay doon moo tax nit ñi jógee fu ne dans la banlieue pour mën a ñëw tey ak travaux yi nga xam ne ils sont en cours muy BRT di point yi nga xam ne président def na ko fi mais aussi ak la politique sociale bu yàggul dugal na 43 milliards def ko ci téléphone yi njaboot yi jot ko. 43 milliards yoo xam ne pour néew ji doole ji la woon nit ñi jot ko macha allah loolu yëpp di ci ndimbalu njaboot ndax xam na ne aussi àddina dafa jafe du rek Sénégal àddina wërgal képp la kon li ñu dese soxna si wax ji moom jarul guddal mooy la jeunesse d'abord ngeen mobiliser wu ngeen mobiliser wu wax ak aussi. vos amis, les jeunes, ñu xam ne il s'agit aussi de leur avenir ñu bañ a topp ñi nga xam ne ci manipulation la ñuy dox ak ci fausse information te nag aussi ñu fàttali leen ne Sénégal 46 départements la Sénégal du 54 départements 46 départements la 46 départements la du 54 kon. Euh, vraiment li ñu war a def mooy wàcc sur le terrain defe naa ne monsieur le ministre d'État cher ami c'était ça le message d'avoir tous les segments de Dakar liggéeykat yi d'abord le secteur informel mi nga xam ne vraiment yàqule nañu lu bare bare ci ay événements tailleur yi nga xam ne ñoo war a ñaw ñu yor seeni xar di ko jaay coiffeuse yi ba ci artiste yi ñoom jàmm moo leen arrangé kon nag yàlla na jàmm sax candidat bi nga xam ne nag ak liste bi yor jàmm ji te bëgg moo sax mooy Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar bu ko defee bu ko defee ñu wàcc nag ci kër yi waxtaan ak ñëpp ndax loolu rek am solo li am solo mooy indi bilan président la république te defe naa ne loolu moom di nit ñi naan weddi gis bokku ci am na bu ko defee le 31 juillet surtout jigéen ñu teel a jóg wote ji les jeunes aussi teel a jóg wote ji ñu def ko niñ ko daan defee pour chaque chaque élection nationale fii président musu fay ñàkk une élection nationale muy 2012 di 2017 avant ça 2016 référendum 2019 yegsi ba incha allah aussi juillet 2022 fa ndox jaaroon dana fa jaaraat bu soobee yàlla kon nag soxna yi et la jeunesse la jeunesse